tey ma leen wax di fàttali rek maa ngi jàkkaarloo ko commissaire gouverneur Aïssatou Ndiaye ci social ma Mancoulière euh, ba tey commissaire euh, ñu gis ne tamit li mu li mu li muy yàq mu ëpp li muy defar ndax des fois euh, da ngay gis yu bari tase na ko ci internet bi la tase ndax da ngay toog sa biir néegité sa jëkkër ñëw nga war a occupé wu ci moom di waxtaan ak moom mais dañuy gis à à chaque fois jigéen ñu bëri dañu concentré seen téléphone ci la ñu nekk bàyyi seen njaboot bàyyi seen jëkkër ñu topp seen jëkkër lan ngay soo lan ngay conseillé jigéen ñi en tant que xam nga loo gis rek am na lu baax lu dogal eh, mooy suñu téléphone yi parce que mën nga ko jëfandikoo lu baax comme mën nga ko jëfandikoo ci safaan bi la eh, jëfandikoo safaan bi ah, comme si ne dañ tëdd ci seen téléphone ba sax la ñuy toog mhm. bàyyi ko mu xam nit ñoo xamante ni tàmmuñu seen jëkkër bu ñëwee ak bu ñu koy nuyu sax boo xam ne ko xool di ko tëgg ca téléphone ba mhm. eh, yooyu yëpp yoo xamante ni ay day yàq ay diggante mhm. parce que ay dëkk yi boo war ko déglu. dëgg la nga xool loo war ko xool. yooyu yëpp mi ngi ci. nga jéem a gëstu loo loo loo war ko gëstu. parce que nee naa ni yenn saa yi moom gëm a toog ñu daf fiy baax. fi baax ci ci ci ci biir néegu sëy mu tuddoo ci mu ci jigéen. wante jël xëy topp sa téléphone. nekk ci yenn réseau yi. xam nga réseau yi moom. day dem ba day mel ni drop ci yow. drop ci yow boo ko tàmmee yenn tàmm yi di nga dem ba. pour nga bàyyi ko teg ko fee di xool leneen sax mhm. day mel ni am na lu manqué ci yow téléphone noonu la mel tàmm la moo tax lu war a moytu la mhm, mhm. Euh, defe naa ni di ci bañ a sori daal lu bari parce léegi négligence xale yi sax des am téléphone wala télé yi wala ordinateur yi euh, defe naa ni loolu xamante ne lu ñu la daal boo xamante ni am na ci ci ci ci mbirum réseau yi euh, mbirum internet bi yomb na yombal boo xamante ne ne tax na internet moom yomb na yomb na jafewu fi loo am loo am mën nga connecté ndax yombal mu yomb mhm. defe moo indi loolu lépp mhm. mais nag ñu ñu ñu xool ñu jëfandikoo ko noo xamante ni mhm. daf ñuy indi njariñ moo gën di ko jëfandikoo noo xamante ni safaan la loolu daal am lu may <laughs> conseillé sama mbokku jigéen mbokku jigéen ñi mën nañ ci jàng lu bari mën nañ ci defe ndox soxla yu bari mais tamit am na yoo xam ne boo ko toppee am na waroo ko déglu waroo ko déglu parce que des fois li ngay gis nga yaakaar ni dëgg la du dëgg mhm. euh, te des fois ni àdduna noonu lay doxee def mhm. àdduna rek di joué rek di théâtre mhm. te ñooñu nax dëgg la biir yi demeewul noonu euh, boo ko bëgg a doxalee noonu te biir kër nag nga indi problème ñu noonu dañ li commissaire wax yaakaar naa ne war nañ cee jël exemple bu baax a baax Euh, te ci bàyyi xel euh, ba tey commissaire dañuy dikkaat ba ci ba tey ci réseaux sociaux yi réseaux donte moom mooy moom mooy thème bi euh, xar yu bëri fa la ñu yàqoo ndax tey dañuy nekk ay xarit tey maa ngi ñu toog di waxtaan ma lay wax samay secret nga di ma ko dencal mais dañ dem ba toll da am dañ dem ba am benn tolluwaay boo xam ne peut-être di nga dem ba sut ma niveau ëpp ma niveau tey ji ñu dem ba suñu yàqu ma ma tey ji la moom lay jëlaat ci baat di ko sànni bi moo xam dama lay enregistré moo damay jël ay vocal sax di ko sànni rien que dafa yàq sa àddina waaw loolu moom ñu ngi gis léegi na mais loolu nag tamit il faut ñu xam ne loolu loo xam ne yoon koy daanu mhm. euh, na am na droit yi nga xamante ni diggante ay ay secret déggoo bi ñoom di ko dugal respect de la vie privée ndax mhm. vie privée jàmbur dafa war a respecté mhm. eh, am na yow yu bëri yoo xamante ne yoon da koy tere te nit ñi xam ni ko sax mhm. eh, ma wax sama wax nga jël ko ci ci ci ci ci ci ci biir groupe bi. ma wax ko waxee ma ci ci yow ngay dem génneel ma ko foo xamante ne war ko woon yegg. Euh, loolu it ma koy jar. dëgg te léegi nit ñi macha allah ñàkk ñàkk nañ tegg daal ci ci côté boobu mhm. euh, bëri na coow coow yi tamit bëri na ci dëkk bi si bëri ci yooyu lay jóge mhm. ay ay enregistré nga toog di waxtaan saxaar yi nga yaakaar ne saxaar la ñu lay enregistré mhm. pour li nga wax mu dem yóbbu euh, yooyu yëpp noonu da koy tere tam ci nit ñaa ngi koy def nit ñaa ñu noonu mu nekk loo xam ne lu day waar dañ cee nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax euh, commissaire suñu duggee sa wàllu euh, liggéey kon ni ma la wax sànq rek <laughs> ah doo ma dagg bi yoon daa <laughs> ñu continuer rek mi ngi noonu kon sa wàllu liggéey sa intégration ci biir police mën nañoo xam euh, kañ la ak ni nga ne yaa ngi jiite police police yi nga xam ne ñoo nekk ci région de Thiès yi est-ce que liggéey bi yomb na en tant que jigéen jiite police yi nga xam ne moom moo nekk ci biir Thiès opération police maa ngi dugg police 2006 maa ngi ci tey maa ngi maa ngi ko maa ngi ko yàgg naa fi fukki at ak maa ngi fukki at ba police ba léegi jaar naa fu bëri jaar naa maa ngi njëkkee commissariat Guédiawaye comme adjoint jógee foo dem commissariat bu Rebeuss jógee Rebeuss dem Médina jógee commissariat bu Medina dem Bel-Air. jógee Bel-Air dem euh, plateau. bu euh, ma jógee def naa plateau ñaari at. Mhm. après ma dem France jàngiwaat. te mhm. ma njëkk see ñu yóbbu ma Rufaato. Rufaato def naa ko presque trois ans. Euh, bu ma jógee Rufaato ñu ngi wax ma Guédiawaye comme commissaire central. ma jógee Guédiawaye commissaire central en deux mille vingt ci laa ñëw fii Thiès. Mhm. commissaire central. waaye liggéeyu police moom euh, ci jigéen ak ci góor rek yëpp laay wax yomb na yombul ci biir liggéey boo xamante ni amul booy xëy amul booy wàcc yombul ci ne yomb na da nga ci jigéen euh, yenn saa yi nga war a gérer ko te nga toog ay weer doo dugg ko te comme ñi nga xam ne dañuy dëkk ci commissariat yi mm-hmm. boo nekkee ci commissariat yi ci commissariat yi ngay dëkk mm-hmm. euh, di nga toog kooku bu nekk kër loolu tamit euh, a jafe nga euh, mais nag euh, ñu koy ñu ngi koy ñi moom ñu ngi ciy ñu ngi si seen ak lu baax ñu mm-hmm. ci góorgóorlu mm-hmm. ci góorgóorlu bu baax daal yomb mais Thiès tamit dëkk la boo xamante ni dëkk ubbeeku la dafa mm-hmm. bëri ay bunt jaar yoon yoon la daal ci ci Sénégal ndax ñu xam ne ni Sénégal li ci ëpp Dakar la nekk te pour dugg Dakar ko nga jaar Thiès dëgg la donc kon Thiès mooy buntu bi mhm. moo tax euh, maanaam euh, métti na méttiwul parce que am euh, am na fu ma jaar yoo xam ne moo gën a métti Thiès kanam ñu ngi góorgóorlu daal ba nga xamante ni li nga xam ne mooy suñu liggéey ak suñu li nga xam fas ñu ci gën a góorgóorlu ci ñu ah ñi ma jiite tamit euh, vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sant parce que ñu ngi liggéey seen liggéey ni mu waree am nañ cër ñu ma jox am respect ñu ma jox ba nga xamante ni euh, bëgguma bëgguñu sax ma di leen dégg ci yenn yi mhm. te seen liggéey bi ñu war a def tamit ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax a baax ñuy mhm. euh, chef de service yi ak éléments yi nga xamante ni ñoo topp ci ñoom vraiment aw ma ci ñoom problème. lu ma leen sant dañ koy def. Euh, ni ma ko bëggee lañ koy defee. te yàlla yàlla jàppale nañu bu baax. Mm-hmm. liggéey bi def naa ne jàllankoor bi bàyyiwul sama macha allah loolu am na solo yaakaar naa ne sama palmarès commissaire risque na dégg li mu développé yëpp na foofu la jaar macha allah ñu naan rek honneur aux femmes vive macha allah commissaire ñu ngi lay remercier bu baax ci loolu la ci ndokkale euh, ba tey commissaire ñu gis jigéen en tant que jigéen euh, jiite ay góor tamit est ce yomb na est ce des fois tamit du am ñenn ñoo xam ne dinañ ci xaw a am côté euh, xaw nga jéggama ci kàddu bi tuuti xaw a comme genre xeebal genre yu mel noonu en tant que jigéen est ce que war na ma jiite est loolu am na ci biir am lii police bi moom gisuma ko fi. wax ko dëgg yàlla comme ni ma la waxee maa ngi sama fukki at juróom-ñaar te ba ma génnee école pour ba tey ci commissariat laa nekk di jiite ay góor gisuma euh, am ak moom problème ci côté boobu parce que ñuy tàggatee école police ñun ñëpp ñu boole. amul góor amul jigéen donc jàngaluñ ñu ne ñii ñoo war a def wala kii ngeen war a yem wala naa dañuy xam ne kii mooy sa chef kii moo ci topp commissaire bi mooy chef bi ci liir naa bi nangam nekk xam nga la yëg muy que mm-hmm. nekk di góor wala muy nekk di jigéen mm-hmm. euh, amul jafe-jafe la euh, parce que dañ leen tàggat ci ci yar boobu ñu leen di tàggat nag c'est pour que ñu respecté ki nga xamante ni mooy seen kilifa. respect kilifa defe naa lu manqué la nag. Sénégal yi waaw waaw loolu am na xale yëpp nag war nañu def seen. ñu tàggat leen ci yar naa ni policiers yi. Uh-huh. te militaires yi wala gendarme yi. Mm-hmm. tàggat boobu lañ leen di tàggat ba nga xamante ni tey bu ñu taxawee fii ñoom xam xooluñu ne man góor laa wala jigéen laa. mais mm-hmm. day ne rek suñu kilifa la mm-hmm. waaw. naa ne mosuma ci am jafe-jafe. pour ñu may xeet wala ñu may mais ñu def bi wala dinañ mm-hmm. Mm-hmm. ñu ànd di ko defandoo sans ñu def distinction pour ñu góor pour ñu góor. xam naa ne loolu moom musu man bokk man man indi tamit musu man bokk soxla loolu am na solo euh, tey jii am na jigéen yu bëri ñoo xam ne bëgg nañoo ñëw intégré ci wàllum police <laughs> mais dañuy xaw a ragal ragal benn côté benn côté soo leen conseil jigéen ñi lan nga leen di wax xam nga nit ki moom loo bëgg rek da koy ñimi dëgg la parce liggéey boo gis comme ni mhm. yow liggéey bi ngay liggéey mhm. wala liggéey boo mënti gis mhm. euh, am na lu ci neex am na lu ci naqar mais liggéey bi da koy bëgg rek pour nga mën a def sa liggéey euh, ak nga jox ko àqam waaw liggéey moom da nga koy bëgg euh, liggéey da nga koy bëgg nga jox ko àqam ba mu bëgg def police ah ñoom ñëw mais nag dañu bëgg xam nga ñu bëri dañu bëgg ñëw def police te dañ yaakaar ni police da ngay ñëw rek boo neexee police boobu foog nga dugg police il faut minimum nga mhm. ah kenn duggatul BFEM léegi par bac la duggee léegi. waaw léegi ñu si bëri wala non BFEM dañuy duggee BFEM agent. te ah, des kenn day ñëw fii sax ne commissaire laa bëgg a nekk. Ah. xalaat ni commissaire bi fu ñëw nekk ma ne la commissaire kat ah nga am diplôme. waaw ah. des fois da ah lu nga ci xam ma ne ko ah déet. <laughs> palmarès bu yaatu li nga lim yëpp. Uh-huh. vraiment. mais nag euh, ku ci ku mu nekk sa bëgg-bëgg. mën nga fi ñëw parce que police mën nga ci épargner wu. mën nga dimbali doomu aadama yi. lu mhm. euh, bëri daal mu ngi ci loo xamante ni. Mhm. dina la dina la yar si àdduna di nga xam àdduna eh, di nga xam nit ñi dina mhm. eh, xam ne police bu bu jàpp rek du <laughs> ñu bëri loolu jàpp ne <laughs> ñu bëri loolu jàpp nag. loolu nag <laughs> macha mu nekk eh, lu am solo. ñëwaat tuuti ci côté parité tuuti rek donte bokk ko ci thème bi. suñu ne égalité entre góor jigéen est ce est ce jàpp ne dafa yem ci góor rek. te ni mu yemee ci bureau bi noonu la war a yemee ci kër gi wala ci bureau bi rek la yem. mais ça dépend ci li nga jàpp comme xam nga mm-hmm. su ñu parité ak mm-hmm. égalité du benn. Mm-hmm. ndax ñu tolloo. waaw <laughs> tolloowuñu doole. <laughs> Eh, tolloowuñu mën-mën. nekk am na noo bindoo ak yàlla lu ma la bindee. lu mu àndal. Uh-huh. bu ñuy wax parité fay xëy na day naan ci yenn liggéey yi nañ yem. nañ ci eh, boo amee nombre de góor am nombre de jigéen ainsi de suite. mais tey bu ku nekk ni ñu euh, ñuy jigéen xam nañ fu mën a yem ak fu mën a yem tey tey tey am na ko organisé yoo tey yoo xamante ne tey euh, jigéen ñi bu yàgg yàgg dañu dem xam nañ ko même bu ñu fa dee dem am na ñu fay dem bu ñu fa euh, boo jëlee maçon Sénégal ñu fay jël jigéen ñi nekk maçon bëriwul de mm-hmm. parce que yëkkati beeg am na yoo xamante ni su yàlla ñun ñu bindee égalité man dama parité aussi bu ma koy wax dama ne nañ def parité boo xamante ni euh, du am euh, comme ni koy wax discrimination bi mm-hmm. euh, c'est vrai que on va faire bëgg def discrimination boo xamante ni pour jàppale jigéen ñi yegg ci yenn ko yi loolu d'accord naa ci mm-hmm. Mm-hmm. mais ñun tamit nañu góorgóorlu ba li nga xamante ni ñun ñoo koy wut ci ñun ko liggéey te am ko parce tey boo jëlee ñun suñu promotion ñu ngi dugg police dañ joxoon jigéen ñi ñaari classe boobu ñu jël neuf jigéen ñaari classe lañ am mais jigéen ñi seen moyen yegg na koo xam ne dañu leen di jox mhm. ñeenti classe xam nga ñoom seen parité ñoo ko gañ ñoo ko gañ ñeenti jigéen cinq seen parité ñoo ko gañ mhm. que ñun ñoo liggéey li tax ñu am. dëgg la man loolu laa gën a d'accord que mhm. ñu yombalal ñu lépp ba nga xamante ni mhm. dootu ñu def benn effort mhm. nañu góorgóorlu même buñ ñu dee yombalal nañu góorgóorlu ba wane ni li ñuy yombalal kat ñun mën na dëgg la loolu laa gën a d'accord macha allah euh, commissaire waxtaan bi neex na euh, nga waxtu mot de la fin rek ñu tàggatoo waxtaan bi neex na macha allah <laughs> nar da nga sonn da lay libéré nga noppal da nga xaw a sonn tuuti. waaw xanaa di ñaaxaat rek suñu mbokk yi mhm. suñu mbokk jigéen yi mhm. ñu xam ni comme ñëwaat ci thème bi rek internet moom mhm. lépp looy bañ mu fës si mbedd bu ko ci dugal parce que mooy moom mooy dafa mel ni rek dugal sa dara si internet bi mooy mel ni rek teg ko ci def ko ci mbedd bi loolu rek la laa laa leen koy misaalale internet loo ci dugal muy sa téléphone ci WhatsApp yeeg TikTok yeeg parce que di nga jël sa say photo doom nga statut ko naan joyeux anniversaire. waaw am ay sa bu nekk fee capté ko. ah, ah uh-huh. xëy na amul droit yor ko bul xam lan la koy. Ah, lan la koy jëriñoo. Euh, lépp looy bañ mu teg ci tegu ci mbedd bi. bu uh-huh. ko ci dugal ndax boo ko ci dugalee mooy yaa ko joxe ci mbedd. moom daal laa ko mën a misaale <laughs> mbokk yi uh-huh. ah bu yombal loolu la. loo dugal ci internet. muy photo muy wax muy leneen mooy. yaa ko dugal te ñu moytu tamit lépp lu ñu gis rek ñu partagé parce que partagé dugal na nit daf mhm. partagé loo war a partagé ñu daal dégg <laughs> waaw vraiment di leen gën a ñaaxaat rek mais lépp lu ñu gis si internet daal dañ koy wax rek tout ce qui est sur le net n'est pas net <laughs> daal loolu laa leen di tàggatoo di leen ñaax ñu gën a moytu ah gën a moytu dañuy réseau yi uh-huh. ah, nañ ci jëfandikoo loo xamante ni njëriñ lay doon te moytu safaan mm-hmm. <laughs> macha allah ko gisee waxtaan bi am na solo te tànn loolu ni ba ñu bëgg a dee macha allah am na ko naan bégte laay am rek fekk nga fii ci euh, police centrale muy commissaire Aïssatou Ndiaye euh, nekk bu baax donc disponible aussi tamit Euh, li mu wax rek nañ ci bàyyi xel yaakaar naa ne leçon la te jigéen ñi dañ ci bàyyi xel en tant que commissaire de police dégg ngeen li mu développé yëpp euh, nañ leen wàññi internet bi ñu ci def moo xam par dégg ngeen ma ko partagé man c'est la xam lii bu ko ñu woon ma ko xam di jëdaay yaa ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax suñu mbokk jigéen ñi nañ leen bàyyi partagé ak ku mënta doon partage loo warta partage wóorul mii noonu nee naan mbégte am saa su nekk rek di fekk ci commissaire Aïssatou Ndiaye di ko jaajëfal bu baax euh, di ko gërëm di ko sant di ko sargal ci 8 mars di ko wax bonne fête merci beaucoup di gërëm Siré Madi bi nga xam ne la ma yombalal émission bi maa ngi koy gërëm bu baax a baax di jëndaa merci beaucoup à bientôt